اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyooti di nga xamante ne rek ci seen biir émission ziar vraiment continuité la dañu demoon dox Euh, dem seeti suñu ay invité ñoom it ñu defal ñu ay teraanga donc teraanga boobu nag nee leen ak seen participation ak li nga xamante ne mooy Télé Futurs Médias nee naa leen le miroir du Sénégal ñoom nag ñoo waral lii yëpp tey alors tey nag gis ngeen suñu arrière plan yi li nga xamante ne moom lañ demoon suñu ay invité jox ñu ko comme teraanga tey moom la ñu fas yéene euh, delloo askanu Sénégal ñi nga xamante ne vraiment soxla nañ ko donc xar yi du pour Yaawa du pour Oustaz du pour Abza du pour Ablaye donc yéen sénégalais yéen ñi nga xamante ne vraiment soxla ngeen ko te tabaski baa ngi ñëw te ku ne tabaski wax social donc xar yi ñu ngi nii yéen lañ koy jox ay ci Oustaz Euh, yaawa xar yaa ngi nii xam nga nag ñun lépp loo xamante ne bii waxoon nañu ko fas yéene nañ incha allahu taala digtal leen ko ngeen gisal ko seen bopp jàmbaar yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi nekk ay nit ñu baax nekk ay nit ñu tedd émission ziar doxantu woon dem seeti leen ñoom ñëpp ku ci nekk yëkkati dara ci sa ñaq dimbalee ko ñi nga xamante ne bii xëy na seen loxo jotul seen gannaaw xar yi nag yëpp a ngi nii incha allahu taala ñu fas yéene ànd maag yaa awa ñi nga xam ne ñoom la ci seen wërsëg nekk taamuwuñ kenn nag ne yow lañ koy jox ci ñetti wàll dañuy ku ci sa wërsëg nekk rek incha allahu taala danañu la béttee mbégte jox la ko mu doon sa tabaski yaawa saas kon dañuy daal di doxantu rek di xool avant ñu génn fii balaa ñu génn fii waaw ñu dem ñu xool xëy na nee na fii du ñàkk daal ah, nañ suñu benn oustaz Adja dafa mel ni gis nañ suñu benn maman bu toog nii de maman na nga def sant yàlla yaa ngi si jàmm yaa ngi si jàmm bu baax yow loo toog fii looy ut fii dama doon euh, wut fi euh, lu ma jàppandee sama xale rek waaw. an sa borom kër. mu ngi ci kër gi. ci kër ga. donc yow yaa génn daal di reyante pour xool loo yóbbu kër gi waaw maa génn pour reyante lu ma yóbbu kër ga. ay ngi tabaski bi. maa ngi koy préparé te euh, gannaaw gis naa la nag lépp baax na gannaaw yàlla. Hmm. alhamdulilah ah donc maman li nga xamante ne mooy émission ziar ak seen ay invité ak TFM ah ñoo la defaloon benn surprise. donc xar bi daal dañ la gis nga toog nii nag xamuñu ñu fekk la ni nga toogee nii ah ñu indi xar bi bëgg la ko jagleel ci tabaski bi yow sa njaboot ngeen tabaski ci jàmm lii nag yow yaa ko moom. def nga loolu rafet kontaan naa ci suñu borom mi nga xamante ne mooy fay yal na leen defal ay ngëneel kontaan naa ci ndax jaaxle woon naa lool te nga xam te foofu laa ko war a amee yàlla ñëw na. saay ma yeew rek maa ngi jàkkaarloog yàlla suñu borom ak yonante bi yàlla mi nga xamante ne mooy fay nag yal na leen defal ay ngënal ba ngeen yàgg koo mon maa ngi ñaan ba wér yal na leen ko suñu kontaan naa sama njaboot kontaan na kon ñu lay ñaanal tabaski jaam rek ñaanal naa leen ko ngeen yàgg koo mon te yàgg koo jëfe yal leen suñu boroom defal lu gën ci yéen yàlla mën na ko yal na ko yàlla def اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن waaw mbokk téléspectateurs yi donc gis ngeen ba léegi ñu ngi ci suñu remise di doxantu un peu partout dans Dakar et environ vraiment Euh, di def suñu remise toujours alors tey nag ñu ngi fi maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6 femmes comme ni ngeen ko euh, xamee donc ñoom aussi bu ñu leen fàtte benn yoon ndaxte ci ñun la ñu bokk vraiment xëy na ndog-ndog rek la ñu am mais ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu génnaat ba dellu si suñun voilà donc ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ne mooy euh, capitaine Nogay seen donc moom nag lañ fi fekk dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo ak yéen capitaine ñu ngi lay nuyu dina la dalal jàmm. merci leen di nuyu di leen dalal jàmm. di leen jaajëfal ci turu directeur administration pénitentiaire di leen remercier bu baax a baax tamit ci acte bi nga xam ne ñëw ngeen def ko fii tey ci maison d'arrêt pour femmes di leen wax ne jërë ngeen jëf jigéen yi si biir tamit dinañ yëg ne ñëw ngeen ngeen indil leen xar yi nga xam ne tamit da ngeen leen sóoraale ci tabaski bi di wone ne rek ñoom lu leen ci ar féete ginnaaw am nañ tous les droits sauf le droit d'aller et de venir ci loolu tamit ñu ngi leen ci jëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf. jërëjëf capitaine euh, waa gis ngeen nag comme ni ngeen ko gisee saas gis nga ñëw nañ ci euh, euh, maison d'arrêt pour femme bi nekk Liberté 6 indil leen cinq xar oustaz loolu loo ciy yokk. yaa am na nañu mbégte ñëw fekk fi jigéen ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñaanal leen yàlla yal yàlla génnee leen kaso nag jombul kenn. xam nga yonte yàlla Yuusufa jaar na ci xam nga Cheikhul Khadim jaar na ci mbooleem nit ñu baax ñu ñuy tiitaroo ci réew mi ñu ci bari jaar nañu ci kaso kon ñu ñaan ñi fi nekk yàlla na yàlla génnee leen ci jàmm ak salaam teraanga yii nag TFM jox leen ko émission ziar jox leen ko. ak suñu ay invité yi nga xamante ne bii ñoom ñoo ko joxe jagleel ko askan wi ñi ni seeti woon ngeen ngeen doon ko seetaan. ci émission ziar ku nu seeti la yàlla mën loo ci sa ñaq yaa ngi ko doon génnee di ko joxe loolu nag lañu ñu dajale tey indil ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko mérito tey nag tabaarakallaahu ñu ngi fii ci barab bi nga xam ne moom la ñuy denc jigéen ñi di leen ko jox ñaanal leen yal na yàlla defal leen jàmm bisimilah. ayca capitaine nag duñ la téye lu yàgg xam nañ ne liggéey bi dafa bëri donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ci accueil bi ñu ngi leen di bàyyi rek ñu ni ñu ngi dawaat di di wër Dakar. merci jërëjëf merci beaucoup merci Baye. fii euh, gis fi benn jeune dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo mu expliquer ñu moom lan lay def sëñ bi na def. waaw ça va sant ñu ngi sant kay. d'accord yow dañ la fekk nii nga toog fii ci wetu kafe bi euh, mën nga ñu expliquer lan ngay def dans la vie da nga am jabar wala expliquer ñu un peu. waaw man moom euh, kii laa tailleur laa waaw mais aw ma soxna quoi aw ma soxna mais maa ngi suma waajur bu jigéen. waaw moom laay jënd xar xam naa su ma demoon bay jënd xar. kon tey maanaam yow tey bu la yàlla defaloon wërsëg tey ba nga am benn xar sa yaay waaw incha allahu rabbi kay moom laa koy jox bu soobee yàlla. kii nu dajal nag day jeune nekk xale bëgg-bëggam yëpp nag mooy lu yaayam tabaskee ndax am na ndaw ñoo xam ne dañoo bëgg seen yaay am na ñoo xam ne teraanga ju nu am balaa ñoo bëgg jox ko seen yaay moom nag xar yi nga xam ne moom la ziar di séddale bi mu tombee ak wërsëgam li mu ci xalaat mooy jox ko way juróom bu jigéen kon ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal fanu way juróom moom itam yéene bi mu am ba am xar xalaatu ci kenn ku dul yaayam yal na ko yàlla jàppale at mu nekk mu di ko am ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kay léegi nag xar maa ngi nii moom la ñu jox sunu soppe bi nga xam ne moom la ñu dajal fii yéeneem yëpp mooy lu mu am ba jox ko way juróom bu jigéen kon nag xar maa ngi nii ñu bàyyi la nga tàggatoo ak waa télévision Futurs Médias. waaw jërëjëf am naa contentement bu yaatu sax waaw ndax li moom mbégte la. waaw na fii ma toog nii dama fi toogoon amoon mbébétu xool ci xar yi jëndal si sama wayjur bu jigéen ngeen bettee ma xewal bi yàlla na sunu boroom def xewal te fay leen waaw kilifa tele bi aussi tamit sunu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér. jërëjëf kontaan nañu xam naa ba tey ñi ngi ci doxantu bi incha allah keneen ku ci sa wërsëg nekk rek daañu dajeeg yow jox la li nga xam ne moom mooy teraanga yi ñuy joxe ci kanam incha allah taala. voilà chers téléspectateurs alors gis ngeen nag ñoo ko gisandoo ñu ngi fii ci euh, face empire des enfants fekk fi suñu maman Anta Mbow donc gis ngeen xale yi ñu ngi nii ñu fekkee leen en pleine activité xam naa ne rek dañuy jël cinq minutes ci seen temps rek daal di leen déposer xar yi teguwaat ci yoon bi alors dañuy dem nag daal di gis suñu maman. fekk ko ci biir ñu ngi ko fekk vraiment mu ngi nekk ci biir xale yi di liggéey ñu ñu jël ak moom cinq minutes rek bañ ko bañ ko déranger trop alors maman Anta ñu ngi lay nuyu vraiment di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateur yi. waaye salaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateur yëpp. e waa euh, équipe bu TFM yëpp euh, voilà di leen remercier nag le fait de penser aux enfants en fait euh, man maay maam ji rek fii mais xale yi laa bëgg ñoom ñu leen di remercier parce que instant bii ngeen xalaat leen indil leen ay xar te feetu xale yi la mm-hmm. tabaski moom xale moo ko moom mm-hmm. voilà nañu sañse am seeni xar kontaan voilà je vous remercie beaucoup parce que voilà c'est une très bonne action noble de penser aux autres et surtout dans une période un peu spéciale et difficile. Voilà, nous vous remercions. Euh, voilà, Mamawa, ça me fait plaisir aussi de vous rencontrer directement. Parce que je crois que nous sommes le nous en direct. Et Oustas aussi, merci beaucoup. Voilà, dama xam ne tabas tabaski ne ko xale yi bëggee ni ñu soppee xar bu xar ñëwee ñoom ñëpp dañuy kontaan voilà sañse bi looloo dama naan daal vraiment tabaski xale yee ko moom voilà yàlla si yàlla def jàmm te musal ñu ci lii di dox yàlla nañu ko fi yàlla jëleel musal ci bépp jullit waa kañ xale yi nag ñu nii seen activité dañuy def gymnastique voilà ñoom xam naa voilà ñoom lañuy demand demandé wax leen jërëjëf mais je vais quand même leur expliquer un tout petit peu voilà salaamaaleykum na def xam ngeen TFM ban lan la moom footballeur la wala TFM lan la ah télévision ah d'accord xam ngeen TFM bu baax voilà léegi ñoom ñooy ñëw équipe bu TFM ànd ak euh, maam Awa xam naa ñii seetaan télé dinañ nga xam ak oustaz voilà ñëw indil leen xar est-ce que temps yi bëgg ngeen xar wala bëggu leen ñu delloo bëgg ngeen xar. dañ koy yóbbuwaat léegi ah ah d'accord kon kontaan ngeen ci seen tata ak seen tonton yi ñu xalaat leen ñëw indil leen xar voilà léegi nag comme d'habitude dama bëgg yéen ngeen wax leen jërëjëf xale yéen yéenay wax merci te am ngeen seen façon boo leen di waxee merci et après on a juste un petit message dafa am xale boo xam ne daf ma dama wax léegi ne ko waa TFM dañu seet si mu ne ma non il faut ma wax leen ñu jàppale ma parce que man comédien laa te dama bëgg def comédie mi ngi nii taxaw na. Aba Aba am nga fi benn élève mi ngi nii. voilà mango benn élève a nii nee na moom comédien la te dafa bëgg a def comédie voilà mi ngi ñuy imiter nag ay nit dañuy ree ba tëdd suuf nag voilà am na lu ko yàlla may daal. yàlla na yokk liggéey bi ngeen gën a kii quoi euh, gën a gën ca kanam waaw TFM gën gën ca kanam après doon euh, télé Vito télé boo xamante ni mooy gën a kii ci àdduna bi daal yàlla ko yàlla def waaw léegi man nag euh, lii laa bëgg a doon artiste comédien parce que man damay toppandoo Macky Sall di toppandoo Abdoulaye Wade ak Kouthia kii nii damay toppandoo kii ah, may ñu may ñu Cissé Lo ci assemblée nationale parce que assemblée nationale mënu ma nangu président Macky di ma gën a APR parce que man APR la ma fa def président Macky Sall Farba Ngom fa ba amul nuñ fa def kon man Cissé président Macky waru ma gën a APR loolu xam ngeen ko sax. Bravo ñu ko mën de waa Empire ñun ñu ngi ci jàmm. voilà mais c' est un imitateur et excellent. ñëpp lay yaawal nag bu Kouthia bi moom toj na fii moom. man maay jël sama engagement personnel yow moom incha allah dinañ dinañ la jël teg la ci loxo Aba moom mu gérer la. ah très bien bravo. nee na man dinaa ko dox incha allah. mu mu kiyool la. kontaan nga loolu nga bëggoon. nee na man comédien laa way yooyu rek laa bëgg dama bëgg nekk comédien. ñëwoon nañu fii seet si xale yi nga xam ne ni ñoom ñoo fi nekk jox leen teraanga ji nga xam ne moom la émission ziar doon séddale xam nga xale nag mooy dooni ku nekk ëllëg kon nag yal na yàlla fay la yow mi nga xam ni yaa leen di toppatoo yal na yàlla bàyyi la fi nga yàgg fi lool yàlla may leen wér ba nga fekk seen njëriñ ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu bég nañu jërëjëf. jërëjëf maman ok au revoir merci. et bonne fête de tabaski mais moytu leen de ah les ñi ñi xaw a gourmand tuuti attention aux moutons ah. moytu leen de xar yi dañuy mbëkke léegi. merci beaucoup jërë ngeen jëf. Merci. Merci. gis ñëwaat nañ toujours en di sillonner les de Dakar donc tey nag am na suñu benn maman bu toog fële dañuy dem waxtaan ak moom rek xool salaamaaleykum maman na nga def sëñ bi ñu ngi leen di nuyu. dégg nga olof est-ce mais di nga di nga jéem wax olof tuuti de maman. Ah. looy def fii nii looy jaay fi kéew ak gerte. waaw mbaa mi ngi dox. ndànk ndànk rek doxul noonu. nag tabaski bi yaa ngi koy préparé. ah alhamdulilah. Ah. waaw maa ngi sant yàlla. Hmm. macha allah na solo donc maman nag tey dañ doon dañ doon jàll nii gis la nga toog fii ah takk sa masque ñu gis ni vraiment yaa ngi jaay keew ak li nga xam ne mooy gerte. donc si noonu nag ah ñu gis la ni nga toogee nii rek sa toogaay rafet ñu ne xaar ñu waxtaan ak yow voilà TFM nag. Euh, moo la may li nga xamante ne mooy xar bi ak émission ziar pour sa tabaski. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla na la yàlla fay bu baax. jërëjëf ñi nga xam ne ñëpp waaw waaw waaw yàlla na fay leen bu baax yàlla ñu am loo bëgg rek bu baax. émission ziar xam nga mi ngi wër di jox ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo yeyoo xar yi incha allahu taala nan leen ko waxee woon fii lañu ko fekk mu toog nekk jàmbaaru fàkk tëdd nekk jàmbaaru liggéeykat ñu seet si woon ko incha allah fas yéene koo teralee xar mi ndax moom mooy wërsëgam continuer waat tournée bi rek incha allah keneen ku nu dajal te sa wërsëg nekk ci rek incha allah ñu jox la ko yaawa jërëjëf Oustaz kon maman ñu ngi lay bàyyi. waaw jërëjëf jërëjëf. nan la ñuy waxee jaaraama. waaw jaaraama jaaraama jaaraama albarka. albarka na yàlla fay. yàlla yóbbu ko moƴƴi. voilà chers téléspectateurs donc ñu ngi ñëw nag fii ci Rue 6 fekk suñu benn maman mu toog fii teg table donc euh, dañ koy bàyyi rek euh, mu daal di nuyoog téléspectateurs yi maman ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu olof bi nag nee na olof bi. olof de. man olof bi setul de. waaw ah, garaawul moom waaw waaw ngi toog fonde rek laa jaay. yow looy jaay ci taab bi. taabam jaay fonde rek laa jaay. fonde ngay jaay. tout ay ah, bulet ko te fonde rek laa jaay te. ana ana njaboot gi ñu kër ga. sama njaboot yi mu kër gi am na keneen dafa génne dem liggéey moo tax. ay ca oustaz dama lay bàyyi rek nga yeggali ko comme ça nga wax ko li nga xam ne tey TFM ak émission ziar moom la ko indil. jërëjëf euh, yaa awa doxantuwaat nañ ba agsi dajeeg sunu yaay ju tedd ji macha allah fekk ko moom itam mu teg taabalam di jaay fonde nekk jàmbaar. tëddul rek macha allah waaye mi ngi jug di góorgóorlu kéemtalaayal kattanam ndax yonent bi wax na ni inna mina zunubi zunuban laa tukaffiruha salaatu wala siyaam bal yukaffiruha talabul maisha Seydina Muhammad nee na am na yenn bakaar yoo xam ne lay tax yàlla baal la ko mooy ki jug di tuur ñaqam pour wut lu mu am kon ñu ngi koy ñaanal bu baax tey nag émission ziar bi ñu doon def fan yii yëpp ku nu seeti ci sunuy ay invité ñoom itam nekk ay jàmbaar di dimbali ñi nga xam ni tabaarakallaahu ci tabaski bi xaru tabaski ñu dajeeg yow sa sens bokk ci ñu fas yéene laa jox xaru tabaski waaye itam di sàkku ci ñaan nga ñaanal ñëpp rek incha allahu taala ñu jox la ko nag ci xol bu sedd jox la ko ci mbégte xam naa dañuy woo gars rek ñu indil la xar mi incha allahu rabbi yaaw jërëjëf oustaz ay ca mama donc xar bi daal comme oustaz ni mu ko waxee yaa ko moom waaw jërë leen jëf léegi sant naa leen waaw jërë leen jëf yàlla leen leen fay ah, ah. waaw waaw waaw <laughs> Aïcha merci waaw merci beaucoup Aïcha ñu continuer suñu doxantu ba tey salaamaaleykum maman na ngeen def di xaar yàlla rek di di xaar la yàlla ak yonent bi ak yéen ah lii dara la dëkk bi neexul. léegi ñun dañ dañ leen bette ak benn cadeau bu neex muy dañ lay may yow suñu papi bi xaru tabaski. Ah, ma ne dum mbax day jëy dum mbax day jëy ah, ah mu ngoog <laughs> waaw yéen ma leen di wax dum mbax day jëy mu ngoog. ayca ayca oustaz damay bàyyi rek nga wax suñu papa bi tam. jërëjëf yaay booy bëgg nañu kontaan nañu ak sunu papa ju tedd ji macha allah ñoom itam nekk ay jàmbaar ñi ngi ñaan yal na yàlla taxawu leen. yàlla na yàlla jàppale leen émission ziar nag dañ ko doon tourné yàlla dogal macha allah li ñu ci am ci ay xar ay bon volonté jox ñu ko seen wërsëg nekk ci moo tax ñu fas yéene yëkkati xar may leen ko sàkku ci yéen ñaan incha allahu rabbi am nañu mbégte kontaan nañ. yéeg déwén li ngeen bëgg yàlla na ngeen ko yàlla eh, jot yàlla bu yaakaar yi a man daal aw ma lu ma lay wax xanaa fecce leen benn bool. Ah. rum bax daa jeeg jag naa nga rin da <laughs> te rum bax daa jeeg te maa ngi yenu sama xar ma ko ma maa ngi yenu sa xar jërëjëf toogal xaar ma yóbbu na chers téléspectateurs alors gis ngeen nag ñu ngi wër un peu partout donc ñëw nañ fii nag nga xamante ne mooy rëbës entre rëbës Armand Grand Niayes Thioker fii nag sama fief la alors ñëw nañ fekk suñu benn euh, vraiment euh, grande sœur bu toog nii ah, teg café Touba am teg ay yëfam di jaay ak suñu beneen tamit grande sœur toog à côté donc dañuy ñëw rek xool waxtaan ak ñoom xool vraiment instant bi tabaski bi ñoom nan lañ koy préparé ay ci salaamaaleykum soxna yi na ngeen def. maaleykum salaam. bi naka la. Seynabou Ndiaye. Seynabou Ndiaye. ah seen bu ñu nañu ñëw fekk la nga teg sa café Touba di jaay alors café Touba bi nu mu demee ndax journée yi yaa ngi jarle wala nu mu demee. waaw journée yi moom tey nga jarle suba doo jarle jaay noonu la parce que jaay gëm yàlla la tey da ngay jaay suba doo jaay mais naka jekk man dama yëngu si kafe Touba daal waaw. damay liggéey tamit en même temps. Ah. waaw damay liggéey jàng suma ma wàccee damay toog fii jaay café Touba. lu ma si am rek ma xam ne loolu la ma yàlla jox daal. bañ a toog bañ a toog bañ a toog daal. ayca donc dañu am suñu beneen sœur bu toogee à côté donc damay jox oustaz rek bu daal di dem foofu waxtaan ak moom aussi. am nañu mbégte fekk la fii nga toog ci sa xarit di waxtaan ak moom yaa ngi waajal tabaski bi. waaw maa ngi koy waajal tuuti tuuti. noo koy préparé. ah xanaa bëgg a dem ci sëñ bi rek. mbaa xar mi jàppandi wala ba tey. ah jàppandee gudde yéen lañ doon xaar. Ah, kon nag euh, émission ziar ñëw na incha allahu taala fas yéene leen a bett ak gi nga xam ne dañu koy séddoo ak àdduna bi yëpp rawatina jullitu yàlla yi nga xam ne ñoo fas yéene tabaski danañu leen jox ay xar yoo xam ne incha allah jaamu yàlla rek lañ ci jublu bu defee lii nag mooy li nga xamante ne bi moom la ñu am fii tey nga xam ni mooy ñaay cokkeer ah rëbës rëbës dëkk bi nga xam ni yaa aw mi yaakaar naa miin na ko fa tabaarakallaahu bu ko defee ñu ñaanal ñi nu fi fekk nga xam ni lii seen wërsëg daf cee nekk ni ñu leen ko waxee woon rek ci tàmbali bi lépp loo xamante ni bii ñi ngi koy def ci lu baax yaakaarun ci dara lu dul payug yàlla ñu ngi ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla boole fay ñun ñëpp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon nag teraanga yaa ngoog muy seen teraanga ñu jox leen ku nekk ak xaram. koor gi yëpp dama lay seetaan yàggu saas parce que man damay dund diine moom macha allah damay dund diine loolu la waaw jërëjëf jërëjëf bonne fête de tabaski. voilà chers téléspectateurs alors gis ngeen comme ni ma ko waxee tantôt ñu ngi fii ci biir euh, Rebeuss donc gis ngeen suñu ñaari sœurs yi vraiment ñoom la ñu jox ñaari xar yi nga xamante ne moom moo mujjee woon ah ñu betteel leen rek euh, di leen wax ni rek euh, ñu am tabaski jàmm alors def nañ un peu le tour quand di leen wax ni di leen fàttali ne émission ziar émission. émission ziar bi nag euh, téléspectateurs yi sénégalais yi a safoo TFM ni ma ko waxee ci ubbi bi rek xar yi man moomu ma ko Oustaz moomu ko Amza moomu ñi nga xamante ñun dox nañ ba dajeeg ñoom ci bedd bi vraiment ñooñu ñoo ko moom seen wërsëg nekk ci alors damay bàyyi rek Oustaz daal ci sànni dara di rappeler juste aussi que am na ñetti xar yoo xamante ne euh, vraiment circulation bi nu mu demee tey dëkk bi dafa metti sonn nañ mais vraiment jar na ko parce que lii bu ñu koy def dañ ci ànd ak mbégte am ci plaisir waaw parce que def lu baax moom defe naa ne bu doon intention bi sax fay na waxatuma laa nag nga motal ko ba mu mat donc ñun aussi ñu leen di gërëm di leen sant yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy def confiance ba ñëw suñu émission vraiment yëkkati seen alal yombul ndax dëkk bi métti na xar yi cher na ngeen yëkkati seen alal def ko ci li nga xamante ne mooy émission ziar ngir fas yéene seen loxo yegg ci askan bi ñu ngi leen di remercier bu baax donc ñetti xar yooyu nag euh, jël nañ ci ñetti nit jël nañ seen ay numéro léegi xar yooyu xëy na circulation bi ni mu demee moo tax mënuñu ko woon jëli mais incha allah ñoom ci seen bopp dinañ dem ba foofu jëli comme ça ñu tabaski ci jàmm incha allah alors oustaz dama lay bàyyi rek nga am loo ci yokk. jërëjëf euh, yaa awa am nañu mbégte ñaanal yàlla bu baax ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen i teraanga baaxe ko jullitu yàlla yi nga xamante ne bi tabaarakallaahu ñoom ñooy wàcc tabaski bi ndax lu waay def ci lu baax ëllëg boo demee ci sa bàmmeel danga ko fa fekk wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah kon am na nu mbégte ci ñoom ñaanal leen ñoom ñëpp nu fi nekk di lim ndax dañuy bañ a lim am ñu nu fàtte waaye képp koo xam ni sa ñaq dugg na ci lii ngir yàlla ak mbaax ngir yàlla ak bëgg dimbali jullitu yàlla yi yàlla yokk sa lépp loo mën ren bu déwénee yàlla nga am lu ko ëpp émission baa ngoog ziyaara ngoog am nañu mbégte ci ñëpp gis na sénégalais yi ni ñu ko bëggee ni nu koy bàyyee xel kon ñun itam amuñu seen fay ndax gannaaw yàlla ñun yéen leen fi nekkal remercier ñëpp ñu nu àndaloon Hamza Ablaye mi nga xam ne fu nu dem moo ñuy yóbbu kenn amul fayam Racine ñoom ñëpp ñu ñaanal leen yal yàlla barkeel leen ay Aysata nekk itam jàmbaar ñoom ñëpp ñu ñaanal leen buuba sax moom petit jàmbaar la sax xawula kii noonu mais ñu sagal ko rek moom itam petit ziar gërëm ko ñaanal ko yàlla moom itam yaa awa ñaanal la am mbégte ci yow yal na yàlla yàggal sa taxawaay yàlla taxaw la ndax xalaat yu bari ci yow lay jógee réew mi yëpp bàyyi la xel kon ñu ngi ñaan yàlla sa carrière yal na la ko yàlla sàmmal yal na yàlla taxaw la ci daraje Seydina Muhammad dégg nañu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bi premier premier numéro bi rek la waaw donc xëy na temps bi nu mu tënkoon moo tax mais xam nga ne chaque année fas yéene nañ ko def na dëgg bii mooy première édition bi incha allah ñu yem dakaar waaye ñu ngi ñaan yàlla évétement yi dëgmal si ziar bépp social boo xam ne mi ngi koy def dana dem ci région yi danañu dem Louga danañu dem Ndar danañu dem Fuuta danañu wër fépp incha allahu taala ci réew mi ndax ziar nag ziaru àdduna bi yëpp la dañuy ziarante defalante yu baax ñaanalante yàlla ren nag Dakar la waaye bu ne dana gën a yaatu ndax déwén Bouba Ndour rek danañ ko sas 10 millions yoo xam ne xar la koy jënd ñu séddale ko région bi yëpp incha allahu taala. waaw ayca <laughs> jërëjëf oustaz donc di remercier vraiment suñu sponsor aussi yi nga xamante ne ñoo ñu accompagné woon ci émission bi ku ci mel ni huile j'adore nee leen huile j'adore moom vraiment toj na àddina diwlin bi ku bëgg sa togg neex rek ci tabaski bi ah huile ñu jóge ci aussi dem ci ki nga ne mooy jus ba pare lekk fruit donc loolu am na solo dem leen ngeen jëndi ko am na parfum yëpp lu ngeen bëgg rek vraiment am na cocktail goyave euh, li nga xamante ne mooy euh, mangue orange lépp gi ci biir donc ñoom aussi ñu koy remercier bu baax a baax a baax jus original bu ñu foofu aussi dem ci nga xam ne mooy opérateur Free nee naa leen euh, Free mobile moom nag dafa indi kalpe bu am solo muy sa kalpe li nga xamante ne benn application la boo xam ne da nga koy télécharger mën a def say euh, transaction recevoir wala envoyer li nga xamante ne mooy xaalis donc loolu yëpp euh, Free moo leen ko indil te du ngeen fay dara donc loolu nag ci euh, baax baaxu tabaski ci la bokk ak keneen aussi di remercier ki nga xamante ne mooy Pack Food Pack Food nag nee naa leen lépp lu baax ci moutarde ak li nga xamante ne mooy vinaigre ah ñoom ñoo fi teg tànk donc ñu ngi remercier di remercier aussi sama sponsor officiel mooy Aya Couture moom aussi maa ngi koy gërëm ndaxte sonnul benn yoon à fois rek fu ko woowee rek mu jóg a Aya maa ngi koy remercier di remercier ñi nga xamante ne jàppoon nañ ci émission bi yëpp comme oustaz mu koy technique bi donc lim na leen ba pare du ma ciy jaaraat ñu ngi leen di euh, jox dig daje nag ba ci beneen événement rek oustaz incha allahu taala beneen événement ziar ñëw àndaat ak yéen xam nga ñun fu ngeen nekk rek ñu fekk leen fa kon nag yaa yal na yàlla may la yow itam borom kër balaa déwén ndax xam naa lakk gi li neex neex neex yaay koy bokk man lu bon bon sax danañ ma kotletal eh, ne ma ne ma ne ma ne ma bébé chocolat lakk gi pare na ma ñëw waaye yow kenn du la woo yaag sa yaay koy bokk kon nag yàlla na yàlla taxawu la ci daraja Seydina Mouhamed. jërëjëf jërëjëf oustaz donc chers téléspectateurs ñu ngi leen di jox rendez-vous bientôt incha allah et bonne de Tabaski